allo asalaamaaleykum maa génn suba teel gi nii di dox fa sedd nag bay bugg a dee ba dama génn di dox plus di um, di ground ground mooy manaam sa tànk yi mu laal suuf sa tànk yi laal suuf si soo boo dëkkee si dëkk boo xam ne fa sedd surtout nga ne fii uh, si bitim réew gi si Europe gi walla Amérique wala anywhere dëkk boo xam ne fa sedd ba tey su seddee it génnal soo gisee naaj bi génn nii naaj bi fa génn waaye tàngut you know ngi sedd boot ngaa war a génn naaju suba teel dafa baax ci yaram lool guys early morning sunshine is good for your health is good for your uh, mental health and it's gonna help you sleep well as well just people underestimate the benefit of early morning sunshine you know to hit you even if it's 10 minutes or so but also you have to do long walk if you can early morning for at least 15 minutes and 15 minutes back that's half an hour altogether and walk really fast as fast as you can <clears throat> also um try to do grounding, like stand on the ground somewhere, yeah? Take off your shoes and stand there for at least five, three to five minutes, you know, and then put your shoes back on and go home. And then you can then shower and go to work if you have work to do or something like this. Extremely good for your health, guys. Please, we neglect our health and the benefit of the, the stuff that we can do to, to help our health and I like talking about this. I know a lot of you from our countries don't like to talk about these things because they're not used to it. They rather just try to go and buy some medicine or try to go and buy some cream or something something to make them look cute and to live long and healthy when they can just eat healthy move around use the sun sign oh yeah it's coming even more now and just do stuff that is good for us nature is here to help us especially sun sign lu may wax mooy ñun suñ askan bi dañ miin di dem di huti ay diw ay per ay dara pour ñu xam wér gu yaram ak pour ñu rafet te suñ lekkee lekk yu baax nelaw yuus yàlla lu indi si àdduna bi ah naaj bii ngeen di daw surtout yéen ñi xeesal wala jës yéen ñi xamul njëriñu naaj surtout naaju suba teel naaj waxuma la nga toog naaj naaj bi su njollooree Afrique digg ba bëccëg tusbaar naaj bi njolloor nga taxaw si naaju lu yàgg waxuma lool ngaa war a sol mbaxana yu yaatu yooyu lu lay protect loolu mun na laa jox skin cancer and stuff waxuma lool surtout boo defut sun protection crème bu baax ne yenn sun protection diw yi fa lay indil cancer moom si boppam <laughs> subhanallah but li may wax mooy naaju subateel teel naaju suba teel fa baax si yaram lool borom xam-xam yaa ngi koy jàngale xat yi yëpp waaye ñun comme nu ma ko waxee rek xam-xam yu baax ñun ñu si bëri ñoo koy mujj a jàng ñun nit ko ñu ñun africain you know xam-xam bu baax duñ koy jàng wala ku ko jàng ba duñu ko wax duñ ko faale lu si bëri you know because ah, miinuñ xam-xam bu baax xam-xam bu baax si ñun soo mënee génn suba teel nga dem dox dox dox dox waaxu wala nga daw wala nga def anything but waaxu is the best daw bi yu si bëri fay tax sa home bi di métti wala just it's not for everybody you know but waaxu borom xam-xam yëpp si wérgu yaram ak yëngatu wax nañ ne waaxu mooy the best exercise pour wàññi yaram pour fan bu gudd pour wirgu yaram pour memory xel bu baax relax am good memory xel bu positif ak pour euh, borom yaramam wàññeeku surtout bu fekkee borom mu ngi xool li muy lekk di lekk-lekk yu baax ba pare euh, di nelaw you know yooyu yëpp ci luy wàññi yaram la bokk. soo yeah guys just bu ko def motivation vidéo bi suba teel gi pour fàttali leen kon dafa am ku may dem létti si kanam ni tuuti euh, maanaam. danaa génn suma kër ay um, fukki waxtu ak benn bu tegee dara wala boori fukki waxtu ak ñaar yooyu ya wala fukki waxtu ak ñaar bot is génn balaa fukki waxtu ak ñaar bi kon a nekk benn waxtu wala su benn waxtu tegee tuuti boo yee te boos bi def jël benn waxtu balaa may yegg foofu soo is bette ma génn suma kër balaa fukki waxtu ak ñaar mm-hmm. jigéen bu ma dee dem létt fu sori foofu noonu ma dee dem foofu laay dem soo tey jàngi ma damay dem foofu waaye ma xëy ne fa sedd ba may waaj a dee suma loxo yaa ngi mel ni glace bot ma ma ñëw dox genn wàlli waxtu dox gi fukki waxtu ak juróom doxaat fukki waxtu ak juróom dëpp ba pare ma ne ma film ko fàttali leen ne jóg leen di dox even su ngeen neexee ci sedd bi wala ngeen nekk ci néeg bi di ñaq waaye génn ci biti dox moo ëpp njëriñ si yow ndax ngelaw li si biti fresh ngelaw li you know àddina si you know jaww ji fa xam lu muy def si yow lu baax loo xam ne ngelaw yi biir néeg du la ko euh, nokki bi ngay nokki si biir néeg bi soo ubbee palanteer yi sax du la mën a jox nokki bi ngay nokki si biti njëriñ li ak euh, bénéfice bi surtout su dee suba teel nga jóg di dox ba pare jant bi jam la yàlla fa xam nu mu defaree nitam ñi ñoo ñoo xam ne ñun loo xam ne ñun ñoo ko ëlbati moo tax wératuñ yàlla ba ñu defaree fa ñu defaral ay tànk pour ñu dox bi ko dox dafa baax si ñun ba pare mu defaral ñu jant bi pour mu di ñu jam suba teel jant bi ñëw jam ñu xeeñu te lool borom xam-xam yi yëpp jàng nañ ko waaye ba tey ñu ngi jàng te xam na jàng yu bari yu ñu si war a def ba tey njëriñu naaj surtout naaj yu suba teel boot gis nañ si njëriñ yu bari ñu ngi koy jàngale man tam lu ma xam re dama leen ko dee bëgg a wax you know wala nga tëdd si wala nga toog si suuf si na nekk suufi yàlla rek buy suufi géej la euh, buntu géej la baax na buy suufi aussi euh, ko euh, suufi suuf su tooy maanaam bu tawee bam tooy wala ndox laal tooy suufi ban baax na buy suuf su xam ñax baax na bu xeboo ñax mi ñax mi fees del baax na nga taxaw ci suuf si rek surtout buy ñax mu tooy la buy ñax mu wow tam baax na waaye ñax bi su baax dana la di stop xëj na ba doo laal suuf si waaye ba tey di nga ground ya bot suy ñax bu tooy walla ñax wala suufi salañ waaye concrete nii it's okay but it's not the best ya because doo connect ak suuf si suuf si ci boppam nga war a connect with ya so ya try leen loolu noonu surtout boo feebaree wala jos nga bëgg a xam fan bu gudd wér gu yaram surtout mag mag bu ne Afrique garab yi ngeen di jënd ak di ko use yëpp su borom di yëngatu feebar bu manti del dal nit surtout mag ñi nekk Afrique di naan garab su ñuy yëngatu yëngatu dox suñuy ground ci suuf si suñuy jóg suba teel naaj wi jam leen ñu toog ci naaj buy fukki minute la sax billaahi wallaahi tallaahi mag muy def lii foo manti ne si àddina wala nga commencé ko bala ngaa mag sax waaye ko koo xam ne dem nga ba mag ba nekk ci ay feebar ay garab tànk yu métteeg nangam nangam feebari suukar ak feebari deret ak mboolem feebar yi dal suñ meer yi yëpp ak paay si àddina si tout su gars yi doon yëngatu ak lekk-lekk yu baax nii feebar yooyu lu ci bëri du leen dal su fekkee ne nag dal leen ba pare su gars yi di yëngatu ak a dox ak a def lu ma la wax ni ak a lekk-lekk yu baax wàññi yenn lekk yi gars yi di def feebar yooyu noonu dana wét am telling you this garab yi tubaab yi du leen faj te garab yi da si dee addict ba soo naanu naanul nga xam problème te du tax nga nga faju luy tax nga faju mooy ngay lekk ay mbuumi nebedaay kon nu ma ko dee waxee si vidéo yi di naan basaab di naan buy te uytu suukar bu dee baay foos nga def ci lu xam kon def ci benn kuddu lem ci bi bu yàggee dang nga ko miin di ko lekk te du xam sukur booy togg fonde nga def ci buy booy togg óot nga def ci buy wala nga def buy ak ndox bu tàng def ci ñaari kuddu lem wala benn ngoon naan ko fa baax si wér gu yaram dafay tax nga nelaw ba saa buñ suukar war nga koo mën a naan suukar si baaxu si yaram basaab buñ suukaru nu ngi koy naanee mooy ngay def basaab bi njar ko ndox bu mu forox trop bu basaab bi bëri ba xonq ba ba fay forox nga njar ko ndox ba mu lewet nga naan ci kaas suba teel bala ngaa lekk dara ngoon bala ngaa tëdd tam bu la neexee nga naan ko boot lu si bëri fay tax nga jóg seben su fekke ni ko xam ne nga sa seben fa jege waaye boo ko naanee si suba danga mën a continuer di seben fa lay raxas sa biir bi yëpp mbuumam nebedaay nga xëy def ko ndox mu tàng def genn wàlli ku dugg ndox moom nebedaay ci kaas bi def ci ndox mu tàng comme naan kafe naan ko ya suba teel bala ngaa lekk dara wala ngoon bala ngaa tëdd gen fa lay raxas sa biir bi baax sa yaram baax sa immune système baax si yëpp ngeen di lekk fruit vegetable wàññi sukur wàññi maalo ak diw yu bon yi ngeen di lekk wàññi cuyeeg diw yeeg you know kick mas yu bëri yeeg you know ajaay yu bëri yi ngeen di sotti si togg gi hmm? wàññi lekk yu bon yi ah, surtout Afrique lekk yu bon yi fay ñëw Afrique tamaate luqati yu bon yi fay ñëw mayonnaise yu bon yi fay ñëw ketchup yu bon yi fay ñëw um, diwlin yu bon yu fay ñëw nu mu tuddati sax Euh, beurre muy bota mburoog beurre beurre yi baaxut ketchup yi lu nekk fii sax baaxut waaye mbooleem lu ñu defar lu bon lu ñuy jaay fii naari yi ñoo dee defar yu bon yi ak seen yi ak yeneen xeet yi nga xam ne yu bon yi ñuy defar tubaab sax du ko defar fañ koy defar indi ko ci ci Afrique ci nit ku ñuul yi parce que ñoom ñoo gën a bañ nit ku ñuul ñoom ñu bëri baraw raw tubaab ba pare xam nañ ne nit ku ñuul yi seen nguur gi ak seen port bi faale wuñ duñ sécurité nit ñi lu nekk rek lu ñëw rek fay dugg you surtout boo leen duggoo xaalis léegi nag moo tax fañ koy defar pour Afrique kese comme ni nga gisee Gambie fañ defaraloon ay gune garab goo xam ne prestamo sirop yu gune yi xeeli di ko naan ñu defaral leen ko gune gu feebar war a naan ñu xeeli ko garab goo xam ne fa xam poison bu bon bu ci nekk ko naan dee gune ya naan ko dee gune yu bëri nguur gi ñu ne juróom-ñaar fukki gune ak dara la man leer na ma ne ëpp na téeméeri gune ndax mënuñoo xam gune yi ko naan yëpp dégg nga te gis nga garab googu noonu indien yi ko defar jaay ko Gambie ñu ne ko defaroon pour Gambie rek defaruñ ko pour seen waa dëkk seen waa dëkk xamuñ ko ñoo ko wax si vidéo live ba seen waa dëkk tiitee génn di jooy ñu ne leen ne ñun lii pour Gambie rek la ñun xamuñ ko bu leen jaaxle jaayuñ leen lii gis ngeen loolu du Gambie rek la ñuy defar prestamo sirop bu bon du Gambie rek du prestamo sirop bu bon rek la ñuy defar pour Afrique lu gën a raw lool la ñuy defar te Afrique cross Afrique lañ koy yóbbu muy ay biscuit yi ngeen di jënd juice yi juice yi ngeen di jënd surtout juice yu ndaw yi gën a jënd ci pot di ko naan wala juice yi paquet yi ngay sotti def ci ndox wala any juice booy jënd Afrique naar yeeg Sinwaa yi koy defar ak xeet yooyu ñun rek lañ bañ te juice yooyu fay reye ñoom ñu koy defar duñ ko lekk man Amina néew ma di wax si vidéo yi di yuuxu ngeen pour ngeen ñaawal ma rek xooxee ma dafa xooxee ma bëri wax buli ma déedéet maa xam-xam-xam xam xéene suñu askan bi jàmm moo tax may wax kon na soo may ñaawal di ma buli di ma xooxee lu ne ba tey su fekkee yërëm nga kenn ci askan bi te xam nga xoli nit te nangu nga dëgg xam nga lima dëgg la séddool vidéo bi like ko keneen dana ko dégg jëriñu